dinaa ñëw rek ci tuuti li nga xam ne actualité la ci réew mi kenn mënul wax te tuddoo ko muy imi immigration clandestine bi nga xam ne ñi ngi mbëkk ci gaal yi xale yi di dem seeni bakkan di ci des Sénégal di ci perte lu ñu bare doomu Sénégal yu bare bare bari di ci des maa ngi jaale bu baax a baax famille yi nga yi nga xam ne yàlla dogal na seen doom des ci te nekk fii ci Touba te bari lool parce que ñi ngi koy réclamer bët bu yàlla sàkk nga dégg dég bët bu yàlla sàkk nga dégg sarax bët bu yàlla sàkk nga dégg jooy boo laajee ñu ne dooma xale yu demoon ci mbënn mi la loolu muy lu méttee méttee méttee ñoo ngi jaale ñëpp di ko ma di leen massawu di ànd ak ñoom métit wi di ànd ak ñoom naqar wi mais di ñaax li fi des ci xale yi ñu góorgóorlu te jéem a toog ci réew mi fas yéene liggéey te xam ne ñoom tekki moom du damay génn samam réew door a tekki li tekki di baax baax tekkee ci sam réew moo ko dàq te mën na nekk xale yi nañu def seen bopp ci ne ñooy ëllëgi réew mi ñoo war a développer réew mi ñoo war a nekk léppi réew mi ñoo war a nekk opérateur économique réew mi ba di ci di di créer ay emploi nit bu joddoo am objectif ne man damay créer emploi maanaam yaakaar naa ne du wuti du wuti du immigré ji te ñoom dañoo war a nekk ci réew mi man mii di wax ak yéen dama bay toolab gerte am ñaar fukki junni ak ñett musumaa génn réew mi bay employé cinq cent personne te musumaa génn réew mi te junni yu mel ni man ak ñu ma man ñu ngi fi kon ñu xam ne teraanga mi ngi ci réew mi te nit day am objectif fii laa juddoo fii laa màggee fi laay tedde fi laay defare sama seewee ba kenn du ma joxoñ loolu mooy jom loolu mooy gone objectif boobu lay am mais damay génn rek dem même boo demee ci àll bi tedd maanaam échec nga parce que li nga man da koy prouver ci seen réew nit day prouver ci fi mu dëkk day prouver ci biir biiri bokkam day prouver ci ci nationalité bi nga xam ne fi la juddoo te liggéey am na fi liggéey am na fi ñàkk a xam liggéey ak nu ñuy liggéeyee loolu mooy li ëpp ci xale yi li leen dal da ngay gis koo xam ne day juddu ci gox nekk fa am système bu tuuti bu mu war a def rek effort bu tuuti bu mu war a def ñu orienté ko rek mu réussir parce que bëri nañu Sénégal xale yi bëri na ci ñu am volonté bari na ñu am volonté ñoo xam ne bu buñ leen orienté tuuti rek forme am tuuti formation rek war nañ mën a dem loolu dama koy xool man damay xool ci xale yi damay jël la la li ma lii preuve bi parce que nit lu mu dund dana ko xam man dama jël damay jël groupe bu manœuvre lu ma cent manœuvre nekk ci sama entreprise ma da leen ba mu yàgg ma seppi ci ñetti nit mbooleem tey jii ñu bari ay chef chantier ak ñoo xam ne conducteurs yi machine lañ ay manœuvre laa leen jëloon ci sama maa ngi juróom-ñeent ñoo xam ne ci ci université bii laa leen jële bi ñuy ñëw ci université bi ah, qualité de manœuvre lañ fi ñëwee nekk ci biir manœuvre yi tey jii ñooy conduire machine yi machine lourd yi ñii ngi yor ay ppm ñii ngi yor ay manetou ñii ngi yor ay bétonnière kuy wedd na dem fii laaj ko donc bi am salaire au moins cent cinquante mille francs par mois donc loolu nag am na fi liggéey am na fi actuellement moment bii ñu toll muy novembre décembre bii ñu jàmm ba babaa ngay dem mois de mars xale bu ci am courage képp maanaam yor quatre-vingt-dix mille francs mën nga balaa quatre mois yee boo amee courage ci gerte gi rek mën ngaa am un million six cent un million sept cent quatre ak quatre-vingt-dix mille francs départ boo jëlee boo boo jëlee benn deux cent cinquante mille dem ci marché yii environnement bi fii ba Porokhane ay marché fii ba Porokhane ay marché fii ba Kaffrine ay marché fii ba Koungheul ay marché la dëkk bépp ay marché ba yàlla sàkk am na marché fii ne boo jëlee deux cent cinquante mille dem jënd ko une tonne ab gerte ci àll bi wala deux cent soixante quinze mille boo ñëwee Touba rek oto yi baana baana yaa nga fa taxaw nga dem jënd ko teg ci oto bi fay sept mille francs benn tonne nga fay sept mil francs ñëw taxaw gaar bu ndaw ñu tegal la vingt cinq francs trente francs muy trente mille quarante mille nga jaay ko génne 7000 transport ak sa añ ak sa reer du ëpp junni nga am 25000 fanaani bu subaa nga xëyaat dellu feneen mais loolu liggéey la loolu rek liggéey la. donc loolu loolu il te loolu bari na fi bu fekkee ne mënoo génn danga naa sama baay mag la wala damay def lii wala damay def laa nga jënd benn machine u segal boo xam ne man ngaa nal. ñaari barigoy gerte wala ñetti barigoy gerte par jour nga dem ci gaar bu ndaw jënd ñaari barigo ci soixante mille francs wala soixante-deux mille francs dem bo bojj ko wa segal ko mu jox la soixante-deux pour cent ci huile da lay jox ñetti bi bidon huile nga dem jaay ko benn quinze mille muy quarante cinq mille nga jaay sa rakkal lu mu néew néew da am quinze mille francs marge bénéfice quinze mille donc nga dëkk ci boo ci dëkkee quatre mois danga am départ il faut xale yi def seen bopp ci ne damaa bëgg a toog liggéey fii donc loolu bu ngeen ko defee loolu rek xale bu am bu bu am loolu dem ci rek wala bu ngeen ko amul sax ñetti xale xanaa lu nit bon bon boo liggéeyee dara war ngaa am benn cent mille francs yéen ñett ba ngeen dajee rek jox kenn sax mu dem jënd ñëw jaay bu ëllëgee keneen ñëw bu ëllëgee keneen ñëw balaa campagne bee jeex rek lu mu néew ne ngeen am ci départ mën a defi leneen mën a defi leneen bu fekkoon ne nag gerte gi dafa nekk di tourner ci réew mi campagne yu gerte da daan def huit mois sept mois ak huit mois mais malheureusement léegi campagne bi day def trois ak quatre mois jeex parce que exportation bi dafa nekk manque à ci Sénégal parce que bu njëkk day tourner rek ci biir Sénégal gerte day tourner ci biir Sénégal opérateur bi baykat bi bay ko jaay ko opérateur bi opérateur bi jaay ko seco bi seko bi jaay ko Sénacos Sénacos segal ko jaaxe ko commerçant bi muy tourner muy maanaam ñooñu yëpp day dañuy ay employeur la daan créer muy mu kenn ku ci nekk di ko di muy créer employé bu bëree bëri léegi nag campagne bi buñ ñëwee dañuy chinois yi dañoo ñëw dañ koy jënd buñ ko jëndee dañ koy yóbbu donc benn rotation rek lay def dem loolu dana gàttal campagne mais quand même ñi ngi ñi ngi gaar bu set Touba moom mooy pôle de arachide fépp foo xam gis oto yu sarse Diawbe oto yu sarse Tamba oto yu sarse ci mboolem marché hebdomadaire Sénégal yi dañuy ñëw Touba lañ jëm si xale bu ngàbb sa xaalis rek dem boo demee oto yaa ngi taxaw naa bëgg a dem Touba 17 poids bu ñu yóbbu Touba da ngay jënd rek teg ci oto bi ah une tonne bu dee donte benn tonne nga am boo ñëwee boo ci fay oto bi 7000 boo ñëwee jaay am ci 25000 30000 wala 15000 wala 25000 lu foo fekk marché bi toll nga jaay daal di dawaat dem il faut ngeen xale yi ubbi seen bët yi ubbi seen bopp yi dawal seen xalaat ci réew mi mais xale yi amatuñ benn xalaat ci Sénégal budul. barsàq bar euh, xaw ma nuñ koy wax barsa wala barsàq barsa bala barsàq nag benn sëkk nu ci barsa baaxul parce que doo da ngay réussir ci réewam jàmbur barsàq moom ko fa dem jeexal kon il faut ngeen génne seen bopp yi ci loolu maanaam kenn ku ci nekk association yéen nekk ci association yi yéen ñi nekk ci kër yi ak seen rakk yi ànd leen fas jom maanaam fas yi ne liggéey ci réew mi maanaam ngir bana réussite donc loolu daal moom laa ne woon danaa ko wax di jaale ñëpp ñi nga xam ne des nañ ci do loolu loolu moom danaa da laa ne woon message la woon bu may sànni xale yi te secteur bi damaa wax gerte rek mais secteur yëpp la secteur yu baree baree bari boo boo ci demee rek man caa am loo jàpp maanaam te loo xam ne loo am tey bu subaa nga am dara campagne gerte li tax amul lu ne mel ci Sénégal économique li gerte di def ci Sénégal li tax amul lu ne mel mooy gerte rek nga man saa boo xëyee xam li nga am bala ngaa tëdd activité boo ci def saa boo xëyee bala ngaa tëdd mën ngaa xam li nga am loolu nag yombul ci benn activité bu dul campagne d'arachide